Heavyweight.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 nekkoon ab waay daa di ko fay fekk agressé ko jël sakos bi mu yoroon eskay ms Diallo mi ñu agressé nag bi mu demee di yóbbu plaintam ci commissariat bu ginnaaw raay ci la yemee ci waa jooju ko doon agressé police yi daa di koy teg loxo ñaw agresseur bi mu ngi wuyoo ci turu teeloo teeloo moomu nag police yi ko teg loxo ci ab opération de sécurisation bu ñu doon def waaw góore waay ba fi mu ne nag teeloo atte nañ ko ba daan ko ñaari atu kaso yoo xam ne dana ko tëdd amande ko cinq cent mille yu mu war a fay ma ne bàyyi leen agressé de dem liggéey moo tax ma ne ji dal réew mi moo gën a graaw corona la wax la xew ca Touba Gédé doy na waar foofa daal ñaari sàcc la fa ab noddu feeñal nga ni ma mbir mi nag nee ñu nii la demee guddi ñaar fukki fan ak ñeent jëm fanweer ci weerum septembre bi weesu ci ay booru trois heures du matin ñaari sàcc ñoo tëb ay miir dugg ci ay kër nee ñu ñetti kër daa di raatale lu bari lu fa nekkoon toj ko tasar ma ne gaa yi sàcc rek lañu ñu mën benn sàcc bi mu ngi wuyoo ci turu deete am ñaar fukki at ak ñeent di ab maçon ma ne ko mënoon ngaa yem ci sa maçon bi nag beneen sàcc bi mu ngi wuyoo ci 3D am ñaar fukki at ak juróom-ñaar di ab mécanicien moto ma ne ko mënoon nga yem ci sa mécanicien ji de ñaari sàcc yooyu nag ñoo tëb ci ñetti kër ma sàcc fa lu bari laa wax kër gu njëkk gi ñu dugg gaay sàcc nañ ay téléphone portable ci ñaareelu kër bi foofa tamit sàcc nañ fa ay téléphone portable ak benn sagame boo xam ni dafa defoon ay paris woor yoo xam ne boo ko xaymaa war naa toll si ñaari million laa wax ëpp law sàccaale fa tamit ay téléphone ak xaalis bu toll ci cent mille francs ci ñetteelu kër bi ma ne sàcc sàcc nañ fa benn rondale boo xam ni boo koy xayma toll na ci quatre cent dix mille francs yóbbaale fa tamit ay téléphone mooy li ma waxoon rek réew mi feebaru sàcc ko toj ñaari sàcc yooyu nag bu ñu defee seen njombe ba noppi ma ne ci koñ bi lañ doon doxantu di jaaba jonge waaye nag li wolof di wax naan am na ñoo xam ne seeni alal kenn du ko sàccee noonu de ndax niñ ko amee dafa leew ndax benn waay bu ñu sàccaale téléphone portable am moo woote ci téléphone am dal di jot benn sàcc bi sàcc bi dal di décroché wuyu ko xam nga ne kii du sàcc professionnel de sa waay ne sàcc bi man li ma soxla mooy sama carte d'identité man ko def ci ginnaaw portable bi soo ma ko mënoon tegal ci ab béréb dina baax sàcc bi ne ko dinaa la ko tegal ci ab béréb waaye sa waay ndekete noonu muy woowee sàcc bi téléphone ci la déggee seen jàkka noddukat ba di noddu nga ni ma xam ne nag sàcc bi muy woo génnul quartier bi naka noonu ci la interpellé waa kër gi yëpp ak waa koñ bi ñu tasaaroo quartier bi dal di koy miine toog di xaar sàcc bi déposé carte d'identité bi bi ñu toogee ak diir tuut ci la ñu seen abuwaay waay buy déposé ab carte d'identité gars yi jàpp ko ne ko niip fuul bi dal di koy saax-saaxee ndekete benn sàcc boobu mooy deetee naka noonu ci lañ koy yóbboo ci brigade bu proximité bu Touba Belel gannaaw ba ko way takk der yi sëkkatale ca la daa di dénoncé aadee beneen sàcc ba police daa di koy traqué moomi ba fekk ko biir këram ne ko népp dal di koy teg loxo waaw góore waay xamun nga ne doo leen rëcc de naka noonu nag ci la ñu tegee seen kaw yi tuuma li tubaab di wax association de malfaiteurs ak sàccum guddi ñaari sàcc yooyu nag defeere nañ leen ca tribunal bu grande instance bu Jurbel ma ne bàyyi leen sàcc te dem liggéey xam ngeen ne li ngeen di daj ci sàcc boo leen ko dajoon ci liggéey am moo tax ma ne jàngoro ji dal réew mi moo gën a graaw corona laa wax la xew ca Petit Mbaaw doy na waar jàngalekat lañ lañu fa teg loxo muy sàcc ay taabalu ba un ne ma ne jàngalekat boobu mu ngi wuyoo ci turu PD Camara dañu dal guddi ñaar fukki fan ak juróom benn ci weeru ut bi weesu la ab taxi bagage gaare ci benn école bu nekk ca Petit Mbao di chargé ay taabalu ba enseignant boobu nag mook beneen nit ñoo àndoon waajaa tëb dugg ci biir école ba di ko jottali taabalu ban ya mu koy yeb ci taxi bagage ba gannaaw bañ leen fa fekkee nag jàpp leen loxo ci poos bagage tubaab di ko wax flagrant délit ma ne fekk nañ ñu jot a yab ci taxi bagage bi ñeenti taabalu bank laa wax te de camara di jàngalekat bi nag nee na li tax mu jël taabalu bank yi day def ay cours bérébam ci la rombee ci école boobu seen fa taabalu bank yi ci cours bi gannaaw si nag ci la ñëwee jël si ko ngir defaraat ko yóbbu ko ma ne ko nag mënoon nga ko ñaan rek xëy na boo ko ñaanoon ñu may la ko mu doonoon seen xibaaru buzz dig daje samedi ci yeneen xibaaru buzz